mbokki réew mi ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen dalal ci sunu page tey dañ fas yéene def taxaw seddu waxtaan ak yéen ci jàngoro jii di coronavirus nga xamante ni dafa dem ba lëmbe àdduna réew yi ëpp doole nërmeelu àdduna yépp jaaxle di laaj feebar bi fan nañu jëmee yii buy faral di am ci jamono nag këru taskatu xibaar yi ak réseaux sociaux yi maanaam saabalkat yi dañuy faral xeetu xibaar gu ne la ñuy génnee yow mi nga xamante ni yaay seetaan nag nan nga mën a def ba tànn xam xibaar yi ñu lay jox lan moo ci dëgg ak lan moo ci dul dëgg loolu moo tax ma lu ñu te ay waxtu yu bari ci mbas mii di coronavirus ñëw ne xaalama defal leen taxaw seetlu vidéo bi dinañ ci waxtaanee chloroquine bi ngeen di dégg nga xamante ni coow lu bari na lool luy chloroquine ak lan lay faj ci jóge dinañ waxtaan ci DJ rawut mi nga xamante ni dafa am benn jàngat bu ci def danaa wax nag ñi nga xamante ni dañ koo weddil jàngat bi lan moo tax ñu weddil ko ak ci lan lañ ko teg buñ jógee ci loolu danaa leen wax lan la rawut tontu ñu war ndar keppee vidéo bi nag waxtaan ne lan lañu war a jàngat ci coronavirus bii nii lan mooy chloroquine boo demee ca Pérou di réew mu nekk Amérique du Sud foofu dafa am genn garab gu tudd kinkina nasaraan yi bañ fa demee dañoo gisoon ni doomi réew ma dañ ko daan jël di ko xooj di ko fajoo bu ñu amee ay feebar ak yu ni mel ci lañ ko jëlee indi ko Europe di ci faj li nga xamante ni moom mooy sibiru ci loolu la benn laboratoire allemand bu tudd Egenfaben jël ko defaraat ko am lu ci yokk tuddee ko santukin 1946 ci la chloroquine jël formu garab boo xamante ni day faj 1949 ci la ko France commercialisé tuddee ko Nivaquine Sénégal sax boo xoolee turu Nivaquine boobu moom moo gën a fës chloroquine nag li faj bari na dana faj si sibiru waaye yemu ca am na ay jàngoro yoo xamante ni ay virus da leen di tere màgg lu ci mel ni coronavirus trace nga xamante ni ay xeet yu bari la ñun genn gi lañ xam waaye am na yeneen lu ci mel ni Ebola lu ci mel ni Zika lu ci mel ni h 5 n ak sax feebar boobu ñu naan chikungunya tey jii buñ ne chloroquine nag xel yépp day dem ci Didier Raoult ñu bëri dañu naan kii kat moo sàkk chloroquine di ko fajee coronavirus waaye nag loolu du doon dëgg boo xoolee am na ay études yoo xamante ni ay boroom xam-xam def nañ ko laata rawut ngir wala ne chloroquine bii mun na faj août 2014 am na étude boo xamante ni dañ ko defoon ci ay ginax yuy wane ne euh, chloroquine mun na faj corona boo xoolee 4 février 2020 am na beneen étude chinoise boo xamante ni ñu ngi ko publier ci revue Nature and Resources moom mu ngi wane ni chloroquine dafa efficace ci ay patients waaye boobu in vitro rek lañ ko def defuñu ko woon in vivo boo déggee in mooy doomu aadama boo xamante ni dafa feebar bi dafa ne ci moom ñu testé ko ci moom waaye in vitro mooy test yoo xamante ni ci laboratoire rek lañ ko def defuñu ko ci jëmm doomu aadama 19 février 2020 am na beneen étude chinoise boo xamante ni dañ ko def ci 100 patients waaye bi par in vivo la. ñu gis ni phosphate de chloroquine dina indi tan ci feebar bii di coronavirus boo xoolee sax di jarawul laata muy def étude bi ci boobu la sukkandiku mu ngi koy wax naan chinois yi kat gis nañ ni am na loo xamante ni mun na faj coronavirus. Les Chinois, qui sont ceux qui vont le plus vite, qui sont les plus pragmatiques, plutôt que de chercher un vaccin ou une nouvelle molécule qui soigne le coronavirus, on fait ce qu'on appelle du repositioning, cest à qui sont anciennes, qui sont connues, qui sont sans problème de toxicité pour les tester contre leur nouveau virus. Ils l'ont testé contre leur nouveau virus, ils ont trouvé, comme ça avait été trouvé sur le SARS et oublié, que sur leur nouveau virus, leur nouveau corona, la chloroquine est active in vitro. bu fekkee da ngaa bëgg a gën a xóotal danaa la defal lien études yi ma la wax ci description bi kon ñu gis ni chloroquine nekkul di jarawut moo ko sàkk boo xoolee sax OMS ba coronavirus bi sonalee nit ñi ñoom bokk nañ ci fukk yi nga xamante ni digal nañ ko ne ah médecin yi ci yii lañ war a xool ngir faj coronavirus waa kon bu fekkee chloroquine yii yëpp da koy faj kon lan moo tax problème am ci jàngatu DJ Raoult bi ci loolu la ñuy dikk ci tomb bi di ñëw. jarul nag may delluwaat di wax kan mooy DJ Raoult yaakaar naa àdduna bi yëpp xam nañ ko ndaanaan la wàll wii muy yëngu di wàllu paj néew na lool ñi ci am xam ni moom. maa ngi leen di digal sax vidéo bi nga xamante ni xalaat TV def nañ ko di wax ci chloroquine wax nañ ci di jarawut loo xamante ni mënuñ ci yokk lenn lien bi dinaa leen ko defal ci description bi bu ñu taxawee sax ci jàngat boobu xalaat TV def man dama gis ni jàngat boobu dafa xaw a orienté tuuti boo déggee ma wax loolu wax ma ko ngir ŋàññi xalaat TV au contraire man dama abonné ci seen chaîne seen jàngat bu ñu génnee dama koy seetaan te damay encourager nit ñi ñu abonné ci seen chaîne waaye bu ñu defee ay centaine de vidéos yëpp ma ànd ci bu amee ñaar wala benn wala ñaar yoo xamante ne ànduma ci day jaadu mat def ci taxaw seetlu te yaakaar naa dañoo war a encourager ay nit yu mel nii waa xalaat TV ak ñeneen ak ñeneen ñu def loolu jàngat bi gën a xóot ci noonu rek lañu mën a yaree askan wi yar suñu bopp ci ñuy mën a am information bu dëggu ndax kat bu ñu yeewoo ci liy xew ci jamono kenn du duñu mën a nax te yaakaar naa politiciens yu bëri ci suñu ñàkk xam la ñuy sukkandiku ngir nax ñu waaye tey jii jamono na foo xamante ni. kenn warul réer buñ taxawee sax ci jàngat boobu xalaat TV def ba ñuy wax ñi nga xamante ne dañoo bekki rawut ñoom ñaari tomb lañ indi benn bi mooy effet secondaire yi beneen bi mooy vingt 24 cas yi ñu wax ni dafa ndaw ci étude bi te boo xoolee sax kiy jàngat mu ngi naan lay boobu taxawul waaye nag dama gis ni am na yeneen tomb yoo xamante ni day jaadu ñu wax ko kon tomb bu njëkk bi li ñu war a xam ci chloroquine mooy saa yu ñu ko testé saa yu jàngoro amee ñu testé ci chloroquine in vitro day dox waaye saa ñu ko defee in vivo day am ay jafe-jafe boo xoolee coronavirus SARS bu 2003 testé woon nañ ci chloroquine testé woon nañ ko ci h 5 ci Zika ci Ebola ak sax ci Sida HIV waaye problème bi mooy saa yuñ ko testé in vivo dañuy gis ni yaakaar biñ ci doon xaar amuñu ko mennum hépatite C la am ay impact impacte yi dafa ndaw lool ba boo xoolee sax boolewuñ ko ci traitement hépatite C kon ñu gis ni benn étude chinoise kese ci lañ mën a sukkandiku ngir wax ni chloroquine mën na faj coronavirus te étude boobu noonu problème bi mooy publier wuñ ko maanaam dañu ne rek nangam dana faj waaye waxuñu nan lay fajee léegi nag bu ñuy wax ci ñi nga xamante ni dañoo weddi rawut yaakaar naa liy gën a yomb mooy ñu ne ah lobby pharmaceutique ñoo nekk ci ginnaaw loolu argument boobu day yomb lool. xëy na nag du ci ñàkk gaa waaye am na yeneen tomb yoo xamante ni du lobby pharmaceutique waaye ay médecin ay moroom nawle di jarawut ñoo ne ko ah sa njàngat bi ñun ànduñu si te nangam ak nangam ak tax tomb yi xaw na bëri gaa waaye nag dañ ci jukki yenn rek wax leen ko benn bu ci njëkk mooy comme niñ ko waxee sànq vingt quatre patients la comité scientifique bi dañ ne ko ah rawut vingt quatre patients dafa néew lool ñaar fukki nit ak ñeent mënoo coo sukkandiku ne chloroquine moo leen di faj ndax am na ñoo xamante ni wër nañ ci coronavirus te jëluñu chloroquine xëy na seen système immunitaire moo baax xëy na liñ nekk ay ndawam moo tax wala leneen ak leneen loo xam ne mun na expliquer lu tax nit ñi wër ci ndax coronavirus du ñëpp a ciy dee ñaareelu tomb bi mooy effet secondaire yi xam nañ ne chloroquine mun na wàcculoo nit mun na yàq bët mun na tamit indi ay accident cardiovasculaire léegi yeneen scientifique yi dañ ne dijarawul léegi effet secondaire yi nooy def ak moom est-ce que boo ko joxee ki nga xamante ni dafa am corona du indi du ko indi loraange loolu étude rawul bi leeralu ko beneen tomb bi mooy dañ ne rawut garab gii ni nga jaxase ci ban état bu feebar bi lay def effet ndax ci tàmbali bi la wala ci digg bi la wala ci njeexintal gi la rawut loolu leeralu ko woon ci étude bi gannaaw gi la génn ne ah bu fekkee ni dañ ko bëgg a jox koo xamante ni kat mu ngi ci diggante dund ak dee du ko amal benn njëriñ dañ koy jox nit ki ca njëlbeen ga beneen tomb bi mooy li ñenn ñi tuddee conflit d'intérêt boo xoolee équipe bu rawul dafa am fukki nit ak juróom-ñett fukki nit ak yooyu daf ci am ñett ñoo xamante ni ñaar ñi éditeur lañ kenn ki éditeur en chef ci journal bi nga xamante ni foofu la rawut publier étude am bi. muy International Journal of Antimicrobial ñetti ñooñu ñooy Philippe Colson Jean-Marc Rolin ak Christophe Lazier yeneen scientifique yi ne rawut ah gannaaw da ngay publier lan moo tax publier ko ci revue yu mag nga ñëw publier ko ci revue boo xamante ni ñi ca nekk say xarit lañ wala boo xamante ngeen te yéenay liggéeyandoo loolu ñun tee na suñu xel lool mooy ci biir essai clinique bi rawut def dafa am ñeent abandon maanaam ñen ñeent yoo xamante ni rawut daf leen génnee ci étude bi te ñeent ñooñu ñett ñi dañ leen transféré en soins intensifs maanaam feebar bi daf leen sonaloon lool te bañ leen joxee garab googu wëruñu te sax am na ci kenn koo xamante ni ba mu jëlee garab gi ci ñetti fan dafa daal di ñàkk bakkanam loolu sax nag luy yàgg di am la waaye li jaaxal nit ñi tey seen xel mooy rawut daf leen ci génnee seppi leen ci ñi ne ko ah rawut munoon nga leen bàyyi donte lim bi du doon benn waaye nag munoon nga leen bàyyi ci biir beneen tomb mooy nit ñi dañ jàpp ni communication DJ Rawout bi day pousse nit ñi ñu bañ a protéger wu maanaam bañ jël ay fàgguteef wala boog ñuy jël ay risques yoo xamante ni dañuy dem di consommer chloroquine boo xoolee sax France ak états am na ay nit yoo xamante ni dañ cee mujj ñàkk seen bakkan ndax dañoo dem jëlal seen bopp chloroquine te loolu kenn du ko digal kenn. boo fekkeewul coow. bëgg a xam dëgg bu dee dëgg rek la tax a jóg doo ñëw rek laaj benn version da ngay xam li Samba wax Demba ba noppee xam li Demba wax sàmba après yow ci sa teeyu bakkan nga àtte ne ah lii kat moo yenu maanaa loolu moo tax ma wax leen lan la ñu reproché rawut waaye nag rawut bañ ko waxee loolu moom am na lu mu leen tontu. mënoon na génnee argument boo xamante ni mooy protocole compassionnel waaye loolu waxu ko protocole compassionnel mooy lan médecin yi am na fu muy toll di faj. bu fekkee ne waa ji nga xamante ni moom lay faj dem na ba egg phase terminale nga xamante ni mu ngi diggante dund ak dee te amul garab bu koy faj yoon may na ko mu tester ay garab yoo xamante ni defaguñ ci ay jàngat amagul droit circuler mu jox ko ko waaye lu tax rawut utiliser wul argument boobu mooy xëy na dafay bañ ñu ne ko ah loolu kat pour phase terminal rek la te coronavirus nekkul ni ñi ko am dañoo egg phase terminale te ñu ciy wër bëri na waaye ñi nga xamante ni dañ ne ko étude bi dafa waroon gën a sérieux am am groupe placebo nee na leen bu leen ma sonal ndax loolu amul woon ci Ebola ak ci yeneen jàngoro kon tey jii doo leen xëy rek ne ma naa ko def boo xoolee tomb yi nga xamante ni moom lañ ji ci rawut moom ba tey weddiwu ko rawut ba tey waxul ni étude bi étude bu baax la ne nangu na ni bi am na gàkk-gàkk mooy tomb yi nga xamante ni moom naa limoon rawut nangu na ko waaye dafa am lu mu ko justifié dafa ne leen lii du jikko jamono la jikko mooy def essai clinique bu jaar yoon bind ko publier ko ci revue yu mag yi loolu xam ngeen ne kat man ndawut mun naa ko te wax dëgg neex yàlla ñëpp xam nañ ne mun na ko waaye jamono moo toll foo xamante ni awma jotu nekk fi di jaar ci méthode boo xamante ni day yàggul lool àddunaa ma yónni yàkkamti ma comité scientifique yi ne a rawut ñun kat bañ nu nga gaawantu ndax ñun ñëpp soxla garab waaye yàkkamti bi lañuy bañ te yàkkamti yàkkule te kat yàqule ci wér-gi-yaram kat mën na indi ay lor raw ne leen ah yéen kat gaawantu bi ngeen may wax sax duma ko mën ndax gaawantu mënuma ànd ak jaar ci seen revue yi nga xamante ni bu ma fa duggee sama essai balaa ñu koy publier mun na def ay weer sax am na benn article bu mu bind dinaa leen ko defal ci description bi mu ngi wax dictature de la méthode naa leen gaawantu àndul ak seen méthode bi nga xamante ni dafa dëgër lool bëri ay jafe-jafe kon mbokk yi ñu gis ni li nga xamante ni médecin yi moom la ñu wax rawut am na lu ci yenu maanaa waaye li nga xamante ni rawut moom la leen tontu it dafa yenu maanaa lool te xel mën na kaa nangu coow yi nag bu amee doone kii moo am dëgg kee moo am fen ñoom ñaar ñëpp mën na noo werante waaye ñoom ñaar ñëpp mën nañ am dëgg fi ñuy sukkandikoo moo dul doon benn fi nga xamante ni yeneen scientifique yi fa la ñu sukkandiku mooy la méthode mooy li yoon tëral fi rawut sukkandiku mooy kat fi jamono toll bu ma lay jox niiral muy exemple ci yu mel noonu dafay mel ni ñu ne réew mii kat ku fi sàcc dañu dagg sa loxo wala ku fi sàcc dañ lay teg daan nga am koo xamante ni dafay sàcc ñu jàpp ko fuñ ko waree tegee daan am kilifa gu jóg ne ko ah lu tax nga sàcc mu ne damaa xiif looloo tax may sàcc ñu ne ko ah yoon kat mooy teg la daan waaye gannaaw jamono la xiif moo moo tax nga sàcc mën nañ laa baal yenn saay luwaa day dëgër lool waaye bu luwaa dëgalee ndax luwaa dafa général éthique mooy tax nga ñëw ne ah wax dëgg neex yàlla yoon kat lii la wax waaye nañ jàdd yoon tey ngir askan bi gën cee jëriñu coow laa ngi lii ya xew scientifique yi nee nañ jikko rawul ne jamono coow li ne kur lu ne ngeen dégg ko ci waaye lii nii la demee lépp li nga xamante ne wax naa ko fi nag dinaa leen bàyyi lien yi ci description bi waaye laataa ñuy tàggatoo tomb bu mujj bi mooy lan lañ war a jàngat ci coronavirus bi am na ay laaj yoo xamante ni tontu ju di yomb dafa bëgg a dafa yàkkamti ndax kursu pour am prix Nobel looloo tax mu salpaañe ji ko ndax ñi nga xamante ni dañ kaa contre tey jii lobby pharmaceutique moo nekk seen ginnaaw wala ndax dañ ko iñaane walla ndax ñoom bu ñu sañoon prix Nobel ñoom ñoo koy am lool moo tax ñu bëgg ko xañ rawut laaj yi nga xamante ni nag mun ngeen ci tontu façon objectif moom laa leen di laaj nii mun ngeen ko wax ci commentaire yi yéen ban position ngeen di adopté ndax da nekk ci kaw jamono wala war a da ngeen jàpp ni jamono moo war a nekk ci kaw jikko wax leen ko ci commentaire yi laata ñi jeexal damay leeral étude rawut boobu ngeen di dégg moom hydrochloroquine la jël jaxase ko ak azithromycine kon ba tey xaw na wuute ak étude bi nga xamante ni chinois yi moom lañ defoon waaye nag li ngeen war a jàpp mooy rawut étude bi man de may déglu yépp kenn weddulu ko ko. boo demee ba France gouvernement bi dañ cee ànd. yàkkamti résultat yi génn ba lii doon dëgg am na étude boo xamante ni def nañ ko ci juróom-ñaari réew am 3200 patients France dong jël nañ 800 patients foofu yoo xamante ni dañuy teste ci ñoom garab yi xool ndax dina faj wala du faj étude bi mu ngi war a génn fii ak ñaar ba ñetti fan bu génnee dinaa jël lien étude bi defal leen ko ci description vidéo bi waaye jàngat bu ëpp solo bi nga xamante ni moom lañu war a def mooy dañoo war a jël rawut comme nit ñëpp war nañ ci teg baaraam rawut ba feebar bi feeñee daf ko ñàkkaloon fayda lool boo xoolee mu ngi bind benn article sax naan trottinette électrique li muy rey sax coronavirus du ko rey kon nga la nit ñi dimbali leen ñoog coow lii lii du virusu dara ca Chine la yem ñaar ak ñetti chinois yu dee rek waru tax ñu lëmbe àdduna di ko wax ci télé rajo yi Raoult moo wax loolu. Professeur Didier Raoult, une épidémie de coronavirus fait l'actualité en Chine. Vous savez, euh, c'est un monde de fous. Moi, ce qui se passe, le, fait que des gens soient morts de coronavirus euh, en Chine, vous, vous savez, je me sens pas tellement concerné. C'est juste du délire. Si, je, sais pas, les gens pas de quoi s'occuper, alors on en Chine de quoi avoir peur, <laughs> parce qu'ils n'arrivent pas à regarder ce dont ils pourraient avoir peur en restant en France. Voilà, c'est pas sérieux. kon tey jii bu ñu demee ba moom garab gi nga xamante ni àdduna yëpp ci lañ yaakaar mu war jóge ci moom lan moo ko may dafa def lu ñu naan wax waxeet wax waxeet nag buñ ko waxee Sénégal expérience bu bon lañ ci am moo tax dañ koy ñaawal waaye wax waxeet yëfi gor la wax waxeet mooy nga wax dara foog ni dëgg la ëllëg nga gis ni da juum nga defee neneen kon bu amee benn exemple bu ñuy jël ci DJ Raoult mooy loolu wax tey lii ne ah lii ma gëm jàpp ni dara du ko dindi suba man ci sama bopp mun naa ñëw dindi ko gëm leneen loo xamante ni daa méngoog safaan wa ci teewlu bi di leen wax ba épisode bii di ñëw du yàgg dara wasalaam.